gannaaw ay négociation ak takk der yi lañu daal di amee ndogal ngir amal seen sitting ñoom ñu leen nag doon ñaxtu ngir ñu mën a ubbi waat université bi gannaaw buñ toogee ay weer amaluñ fi njàng ak njàngale. neuf mois université boo xamante ni moo ëpp réputation de Afrique de l'Ouest ñu tëj ko étudiants yi nekk fii di galéré yàq ñenn ñi dem ba bàyyi jàng donc mu nekk situation boo xamante ne nii bu metti la. ñu tëj université bi woo étudiants yi pour ñu ñëw def seen ay examen faculté yi ñii di ñëw amuñ fu ñu def ci ndakaaru neen ñi condition yooyu tax mënuñ ko dékku ñu préféré toog seen kër yi lii mooy situation université bu Dakar lii lay étudiants di dund ñoom ñu le nag liñ jàpp mooy amul lenn lu war a mën a tax ba waruñ mën a amal cours yi fii ci université bi. ñun xam nañ ne université mën na accueillir étudiants yi pour pour pour justification am na étudiants yoo xamante ne tey tijji lañ la yenn faculté yi pour ñu jàng donc université mën na mën na accueillir étudiants yi mais li ñu doon wax depuis 9 mois depuis 4 mois wala 5 mois yi mooy un renforcement du dispositif sécuritaire mooy sécurité université lañ bëgg a dolli je pense que ne tey bu amoon ten bëgg-bëgg bi yaakaar nañoo mën a weesu foofu noonu waroon nañoo mën a déployer les ñu ubbi suñu université bi que li ñu li ñuy régler moo ëpp université problème université bu tuuti la donc ñun li ñuy laaj pour ñu ñëw jàng bëriwul. ñu tëjoon ko gannaaw bi mu amee ay manifestation yu méttee métti ci weeru juin bi ñu génn étudiants yu bëri yi ñu tegan loon loxo loolu nag moo waral ba tey ñoom ñi lay ñiy ñaax autorités yi ñu libeere leen ci ñu mu gën a gaawee. ñu ngi libéré ay détenus politiques depuis barki démb et suñu camarades étudiants yooyu noonu waxuñ sax seen ay dossiers ñu koy ñaawlu parce que kat li nga xamante ni mooy place étudiant bi ci prison bi ñooñu noonu day soutien de famille lañ fi nekk tey. ñuy dund situation bu métti donc dañ leen war a bàyyi ñu ñëwaat seen université bi ñu jàng ngeen ëllëg ñu tekki ñëw dimbale seen ay waajur ñoom ñi leen nag xamle nañ ni fii ak altine bu coppeeku amul dinañu wëyal seen xeex bi la